kilifa yu tëdd ci jataay bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi kilifa kër gi di Serigne Mansour Mbacke ak mboolem njaboot gi nga xam ne ñoo njabootoo ci Cheikh Abdoul Qadir Farimata ñëpp di leen ndokkeel bu baax a baax a baax di. sàkku itam ci mbooloo mi bala noo jàll rek suñu kilifa yi nga xam ne sëñ bi dim na ko léegi ki ci mujj mooy sëñ Hamzatu mu borom Darou Mouhty te jóge fi tey jii ñu sàkku ñépp doon leen na ñaanal te ñaan yàlla mu dajale leen ak kilifa yu baax yu mag ya ci daraja sëñ Tuubaa ginnaaw loolu insha allahu taala waxtaan wi ni ko sëñ Cheikh naa waxee rek ñëw danañ ko tënk ci ñaari mbir mooy lii ñu tuddee ak murit te muy wooteeb sëriñ bi ca bu njëkkoon nam doore woon ak na sëñ bi jaar ak ñoom njëkk ñoom njëkk àndal ba agsi fii mu agsi tey ñaari xaaj yooyu lay doon waaye nag man fi may gën a taxaw rek mooy yoor bu lu njëkk la ak la sëñ bi doon woote ak nam ca jaarale mag ña tey nag lii xew nag bu ñu xamee lool rek dañ ko mën a dëppaleeg lii xew ñu xam ba xam noo nga ca wala sori nañ yoon wa tuuti xam ngeen ni Sëriñ Tuubaa Séex Ahmadu Bamba radiyallaahu anhu yàlla nu ko tànnal yàlla nu ko baaxee ñu xéewal ci bindeef yëpp yàlla bi mu koy baaxee dama yaakaar ne nit ñëpp la ko baaxee du ceegee ni wala bi ko moom wala waa Sénégal ko moom waaye adduna sépp ko bokk mu doon yeesal lislaam te bi mu ñëwee itam fekk lislaam ràpp ni ko sëñ musaa waxe lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay fi sowwu jant fépp mel ne làmbaay ci sowwu jant bi fépp mel ne làmbaay la wax ca ginnaaw ba mooy kenn amatul xasdu li wajhillaahi mooy ñu ngi doon jëf-jëfe lislaam yi waaye sellal gam laaj loolu moo ñàkkoon Sëñ Tuubaa ñëwaat nag Sëñ ñëw dundalaat ko ci xoli nit ñi noonu yi mu ko dundale nag loolu la ñuy tuddee tey ak murit xam ngeen ne sëriñ bi ma nga tàmbalee woote ba ca Mbàkke Kajoor waaye njëkk muy woote loolu duñ ci sori ndax buñ ci duggee day gën a gudd waaye li may jëkk wax rek mooy xam nga ne sëñ Tuubaa bi mu feeñee dafa fekk sëriñ Mamour Anta Sali mi nga xam ne mooy waajuram nekk ci tariqa xaadir di ab xaadir jëloon gëtu xaadir ci ku ñu wax Samba Tukulóor Ka ginnaaw bu mu yeesal ko ci Cheikh Ibrahima al Fouti moom yi ñu xam dañ tudde ko borom Daaru Muxti sëriñ bi jël ci moom wirdu xaadir woowu waaye sëriñ Tuubaa da doon borom positif boo xam ni dara mën naa ni dafa feesul bëtam lu mu am rek day xool la ci ginnaaw loolee bi mu jëlee ci moom wirdu xaadir xam ngeen ni ginnaaw bi ginnaaw Mamour Anta Sali dem na ca As Camara ca Ndar jëriwaat ko As Camara ma ngi ko jëriwoon ca Cheikh Sidiya waaye ginnaaw bi itam dem na ba Mauritanie jële ko ca Babul Chassiriya ginnaaw bi itam bi mu ñëwee ba Touba bàyyi na mboolem ñooñu ma ko jëloon ñëpp wékk boppam ci Cheikh Abdul Qadir Jilani jaayanteeg moom ba ci Yassin muy 1310 ci la gisee ak Cheikh Abdul Qadir ci lu dul ay nelaw ba mu gisee moom itam. Cheikh Abdou Qadir joxaat ko saar ko talqiin ko wér di tariq Qadir yëpp waaye sëñ bi yëmut ci loolu jël na itam boo dem awraad ci des jël na saadaliya Baabul Hamdi yaakaar naa moo ko jox ca Mauritanie ginnaaw bi jël na tariqa tijaaniya yooyu da koo jël ci barkeelu rek xam ngeen ne nit ki mën a nekk ci tariqa di jëfandikoo wir di yeneen tariqa yi ci barkeelu waaye tariqam bi nga xam ci lay doxe te soogoo ci ñu ko ci terbiya loolu moom mooy cosaan li mooy xadir la ci sëñ ba ndax ba ni ba ni mu ñëwee ba Touba ñi ngi gis muy wax naan yaqulu ahmadul faqiru jidda atuba wiyul qadiri yu wirda kon booba qadiri la wirdaan waaye bi mu jëlee ñaar yooyu sadaniya ak tijaani yi nga xam ne jëfandikoo na ko lu ci ne juróom-ñetteel tijaani yi sax Cheikh Mouhamadou Bassir nee na jëfandikoo na ko lu ëpp juróom-ñetteel juróom-ñetteel ba ca Touba itam ca bi muy sanc fii ci atum 1310 ci hijriya gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it ca la gisee yeneen boroomi tariqa yi ñu saako seeni wërd waaye sëñ bi loolu lépp taxut mu doy ko ñu doy ci géej gi ci la Sayyidna Jibril ci ndigalu suñu borom la ñëw nangu mboolem lu mës jël ci nit suñu mee ko nekk liñ boppam mi ngi ci irwaawu nadim min abdi bi ko si bi ko Sayyidna Jibril ñëwee jëlee jël ci moom mboolem lu mës a jël ci nit Sayyidna Muhammad ci boppam ñëw joxalaat ko boppam awraadi turuq yëpp muy tijaaniya ak qaadiriya ak saadariya nga xam ne mook nam ko joxe woon kilifa yu njëkk yëpp ko joxe te ne ki jël saadaliya wala tijaaniya wala xaadiriya ci sëriñ bi kooku mën nañ ko tuddee xaadiriya rek waaye wird la boo xam ne yoon te ñoo ko jox sëriñ bi rek te silsila bi ci kii am moo gën a gàtt masalan ka nekk xalifa feneen masalan ci misaal ndax kii ci sëriñ bi la jóge mu jël ci yonent bi kon foofu dama doon misaal rek ne sëriñ bi dara doyu ko ci yàlla moom ci moom daan wax nag ñi ne leen lu ngeen am ci yàlla na ngeen ko jéggi te xam ne lu ko kawe man ca ci ginnaawam ba ñu demee ba Mauritanie nag lañ ko dajaleen wird yëpp ci benn wird muy al wirdul min allahi bi waasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ci accès si mooy 1321 ci gàddaay ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag woote bii di woote bu murit moom ma nga tàmbalee ca Mbàkke Kajoor ca Mbàkke Kajoor ginnaaw bu fi Mamour Anta Sali jógee bañ teg ca at ak lu topp ci la xëy benn bis ci daara ji fekk daara ji daara ju mag la woon fu ne la nit daa jóge di jàng si foofee ñu fa daa jàng xeeti xam-xam yépp amoon na xam yoo xam ne sax amutoon ci réew mi buñ fàttali Sëñ Tuubaa ni ma ko waxee day wàllu xam-xamu sayir bi te ci sut ñëpp ndax yàlla ko defal tawféex yi ba ci xam yi nga xam ne amutoon ci réew mi yàlla da koy tàggatal ñoo xam ne day jóge ca bitim réew ñëw mu jàng ko ci ñoom ilmul nga xam ne bëri ci réew mi gis nga yàlla defaloon na ko mu jàng qiraat yépp moom sëñ Tuubaa naar yi doon ñëw foofu ci njaañ foofee la ko jàngee muy Cheikh Mouhamed Fadil Daymaan yi doon dem ca Mbàkke Kajoor nag ginnaaw boobu sëñ Mamour Anta Sali jógee benn bis la xëy dajale daara yépp ne leen képp koo xam ni jàng kese kese moo la fii ni na nga dem seeti ku la jàngal koo xam ni nag li nu bëgg nga bëgg nga toog ànd ak noonu ci sunu dox yi ba mu ko waxee tëju ay fan daara ji yëngu lool ñi ëpp ci daara ji dem ñibbi ndax ñoom jàng moo leen fi indiwoon te lii sëñ bi woote xamaguñ lu mu doon ñu tuutee tuuti toog ñu tuuti ñooñee toogoon na ci la woote bi sëñ bi tàmbale noonu yi mu def itam taxaw woote ci digg daara ji rasulullahi sallallahu alayhi moo ko ko digal Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ni ku gër di kilifa ci yoon wi moo ko nett li ne ko sëriñ bi wax na ko ni yonente bi ci mom moko wax ci làmmiñam ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bid dars moy ñi nga àndal bul yam rek ci jang kese waye de leen yar ci tarbiya bil himma tarbiya bil himma nak moy ak murid rek te moy nit ki ñu jaarle ko ci yoonu pas-pas ak pastéef ak yitte ju kawé ndax jang ki la koy jang ki lay jangal dara jox rek bind su la nexé jëfé su la neexee doo jafe yoon wii sëñ bi doon woote nag yow da koy jëbbal sa bopp moo ci jiitu nga koy jëbbal sa bopp may ko sa bopp muy soppandiku ci nu mu ko neexee te doo laaj lu tax danañ ci ñëw léegi insha allahu taala loole nag boo ko amee ci yow ci la lay gën a gaaw mën a defal ndax boo ko bàyyee sa bopp mel ni néew rek fi wetam waa ci la gën a gaaw mën a defal waaye boo ñëwee di jàng rek kii jàng boo ko joxee bind bi bu ko neexee jëfe bu ko neexee du jëfe moo tax sëñ bi jaaree noonu ñoom nag ci yoon boobu loolu itam sëñ bi junj na ko wax ne yonente bi moo ko digal mu jàngale ci anam gii mu ko doon defee itam amarahu sallallahu alayhi wa fi alihi wa sahbihi wa wala bi an yuallima al muridina wa man yaqbalu minhu nusha min ahli zaman keroog nag ba mu waxee loolu ca daara ja ña nangoo a toog ànd ak moom lañ njëkk a def mooy jaayanteeg moom murit gi ku ci masa dugg da nga jaayante jaayante mooy li jiitu ci murit te mënta ñàkk xam ngeen ne jaayante lislaam ci boppam rek ci jamono yonte bi sallallahu alayhi wasallam kuy dugg ci lislaam da ngay jaayanteeg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba yàlla wàcce aay yu bari ci alquran di wax ci mbirum jaayante di tagg ñiy jaayanteeg yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ay secret yu bari ak mbir yu baree bari wax ni ngërëmul yàlla mi ngi ci jaayante te loolu mas na ko dégg ci li mu wax ne laqad radiyallahu anil muminina is yubayiunaka taxta shajara xana feneen ne inna alladina yubayiunaka innama yubayiuna allaha yonente bi sal sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bi imam muslim nett li ni man maata wa laysa fi unuqihi baytatun bayatun maata miitatan jahiliya képp ku faatu te jaayante woo fenn yow deew jaayil nga faatu jaayante lu rëy la ci lislaam ci lislaam la bokk ginnaw yonte bi nag dafa faroon daanaka kenn booleetu ko doon ci mbir yi wala boog ñi doon jaayanteel mooy nit yi yi buur yi buur bu taxaw ñu jaayante ko ba léegi ci réew yu jullit yëpp dangay gis bu fi nga xam ne ay buur a fa am jaayante dañ koy def waaye buuru adduna bi dañ jaayanteel dinaa ko wax lu bare bari mooy nun ñi ànd ak nit yàlla yi dañoo tànn li jaayante ak nit yàlla yi waaye suñu mbokk yi nga xam ne léeg-léeg ñoo ci noonu ñoom dañoo tànn di jaayante nit yi àdduna yi fi ne bu kenn faatoo ca Arabie Saoudite dañuy gis dañuy dem ci ambassade bii nii jaayante kii fi toog nga xam ñoom nit lañ ko lañ ko jàpp ci lislaam la ñi ànd ak nit ñu baax ñi dañoo gëm ne jaayante ak nit ñu baax ñi mooy yoon wi moom la yonte bi doon junj moom la yonte bi doon digle suñ tubaay itam ku sa jaayante moom digal na la tere la ca jamono jooju itam mboolem ñu jaayante woon wala wala ñu ëpp ci ñoom joxoon na leen al wirdul qaadir maanaam ba leen jaayante ca Mbàkke ba ni ñëwee ba fii ci tuubaab li ëpp ci ñoom buñ jaayanteeg moom dana leen jox al wirdul qaadir ndax sëñ bi dana wax ni lii jokkale nit ki akub sëriñ lii koy may taalluq ci sëriñ bi li koy may mu aju wér ci sëriñ bi bokk na ci jël wirdu sëriñ boobee moo tax ku jaayanteeg moom ci jamono yooya ñu cëpp daan la jox Amiirul Qaadir loolu gis nañ ko ci mbindam fu mu ko fu mu ko waxee dañuy bañ a guddal rek kon foofu bu ñu doon taxaw dañuy gis ne loolu mooy li jëkk ci murit mooy nit ki war naa jaayante akub sëriñ ci biir murit gi ndax sëriñ mënta ñàkk Sëriñ Tuubaa wax na ne fa kullu man lam yata addab zamana ala yadi cheikhin fa yalqal mihana koo xam ni amul benn sëriñ jaayante wut ak kenn ci coono rek lay dëkk kon jaayante mënu la ñàkk ndax ku ñàkkub sëriñ faw seytaane rek moo doon sa sëriñ waaye suñ tubaab nga xam ne nag seyku xaq mooy dëgg-dëggi ab sëriñ mooy ca bayit yi Cheikh Abdul waxoon ne wa in saadaka wa in aw saaqaka al muna ila seyqi xaqin fi lxaqiqati baariu فقم في هواه واتبع لمراده ودع كل ما من قبل كنت تصانع وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو مطاوع موي بودي بغي سيرن بو وير بو دغ تي جار سي نيوغ كوكي نغا غاو جاينتك موم تي توپ اي ديغلام تامن نيو في ويتام رك lu la digal nga def lu la tere nga bàyyi suñu borom dafa wax ci alxuraan ne wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida bi nga xamee ne mag ñi bi nga xamee ne mag ñi jaayante nañu moom jaayante nañu sëriñ bi sëriñ bi dafa jaaree ñoom ci ñaari anam mooy njàngale mi bàyyiwu ko hmm? waaye dafa indi yoonu tërbiye yoonu tërbiye wi mu indi nag jàng daa bokk ci biir danañ ci dugg léegi insha allahu taala moom sëriñ bi ci boppam bàyyiwul woon di jàngale wax nañ ne daana jàngale ba nit ñëwee Touba fi la bàyyi jàngale am na ñu ne nag foofee la ko bàyyi ci Mbàkke Kajoor waaye lu mën xew moom dafa sàkkoon ñu doon jàngale xam-xam ak ñu doon jàngale alquran cheikh cheikh sëñ Daam Abdourahman Lo ci ñu ko doon jàngale alxuraan la bokk cheikh Ibrahima Fati ci ñi ko doon jàngale xam-xam la bokk sëñ Mbàkke Bousso ci ñi doon jàngale xam-xam la bokk sëñ Mamour Diarra ci ñi doon xam-xam la bokk cheikh Mouhamadou Dem sëñ Mouhamad Dem ci mujj gi moom ci ñi ko doon jàngale xam-xam la bokk sëñ Mouhamad Lamine Gueye jëm mooy sëñ Maxtaar Bintaloo ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñëpp dañu doon jàngale xam-xam te bokk ci waa kër sëñ bi di jàngale itam njabooti sëriñ sëriñ bi moom booba jàngaleetul léeg rek mu ñëw ci daara yi joxe bind wax ne ni bind ba mu mujj jàngale mooy am na ñu ne ca Mbàkke Kajoor la am ñu ne fii ci Touba waaye booba alfiyatu ibnu Maalik doon jàngale ba àgg ci baabu abniyatil masadir ca bayit wu njëkk wa faalul qiyaasu masdarin muadda min di thalathatin ka radda radda mu waxee bayit wi rek xaal dikkal ko ju metti yàgg loolu boole ci xaal di dama moom ba ca suba sa taxul mu wàcc keroog la mujj toog moom nag kon li fiitewoo woon mooy jiite daara ji di leen taalifal nag téere yi ñu war a jàng ci daara ji yëpp mu leen koy taalifal gis ngeen fànni xam-xam yëpp taalif na ci bu dee ci tawxiid taalif na ci mawaahibul quddus fii nazmi nasri cheikhina sanusi bu ak lu mel ne faydul ghani al mughni ak jasbatu shixaar ak yeneen ak yeneen bu dee ci fiq te def na ci al jawharu nafis ak nahjul xaqiqa fii hatki sitri al aqiqa ak tasawudu shixaar ak tasawudu shubbaan ak yeneen ak yeneen bu dee ci tasawuf taalif na ci lu bari masaalikul jinaan mu layyinu sudur mu mu mu nawwiru ak maxaaliqu niiraan ak yeneen ak yeneen ba ci yëmul ci loolu ñi nga xam ne dañoo weesu jàng te leen daa defal ay dénkaan yu gàtt ci ay tomb loolee fi mu ne day nañ ci lu bari mooy majmoo bi Cheikh Abdoulaye génnewoon ak diwaanu sirkul jawaaxi ak lu mel ne jawaaxi ci boppam nga xam ne ay dénkaan ci ne ak ay xikam bu dee ci ak taalibe muy teggi ni murid taalif na ci taalifal na ci murid yi nax yu ay xaaj fi ma minal adabi murid yaxtaaj ba ci xadis yu yonent bi taalif na ci arbauna xadisan boo xam ne ñu ngi ko tuddee nafaisu durar fii kalimaati xayril basar ba ci teg ni ñuy sàkkoo xam-xam taalif na ci zaadu zawi taallum wa raxatu taalibil li mu woon mooy daara ji mu leen di taalifal la guddoon ci téere yu njëkk ya mu gàttaral leen ko ci téere yu gàtt ak mbind mu gàtt ak bind yu gàtt ci wetu daara ji nag mu amoon yeneen daara joo xam ne ñoom tërbiya ruux yi rek lañ ko doon tërbiya mag ñi nga xam ne dañoo jàng ba noppi ñoo ci daane ak ñi weesu jàng ak ñi nga xam ne ñoo dikk rek seen yitte di tërbiyawu ci sëriñ bi ñoo ñee mu jaar ñoom ci yoonu tërbiya te mooy tàggat leen di leen xiifal leen liggéeyu liggéeyu bu bari di leen tuddloo yàlla tudd bu bari waaye fa mu njëkk a tàmbaleek ñoom mën nañ ko déggee ci li Cheikh Mouhamadul Mouhamadul Bachir nag li ci Minanul Baaqil Qadiim mooy bi mu sañcee fii ci Touba bis dafa yebal taalibeem bu ñuy wax Abdullahi Diaw ca murid yow boobu ña nga mu ne leen inna man kaanat himmatuhu mutaalliqatan bid dunya aw bil axira mujarradatayni aw ixdaahuma mujarradatan falyansarif anni wa ruddu kulla sabiyin ila awliyaihi mooy képp koo xam ne adduna kese mooy na dem bàyyi ma fi sama képp koo xam ne alaaxira kese mooy yitteem na dem bàyyi ma fi sama daara képp koo xam ne adduna ak alaaxira ñoo ko yitteel na dem bàyyi ma fi sama daara képp koo xam ne yàlla kese moo ko yitteel na toog maanaam alaaxira am na ñoo xam ne moo leen tax a toog mooy dugg àjjana ak lekk yaag naan yaa xéwal dañ koy wax xam suñ bi kon nañ gis ne moom fi mu leen jëmoon mooy seen yitte bi yàlla kese wut yàlla kese ak àgg ci ngërëmul yàlla li mu wax ne idil muridu laa yuridu abadan xayra rida rahmaani ña ko nangu woon a topp nag mu jaaral ñoom ci yoonu tarbiya yoonu tarbiya bi mën nañ ko tënk ci juróom benn mbir yoo xam ne ca la noonu la doon defal ñoom la ci jiitu mooy ku ñëw fi moom dana la jàngal dana la jàngaloo xam-xam sëñ Basiru dafa wax ne ku ñëw fi moom li mu lay jëkkee yow awwalu maa yaxuduhum bihi baada taqriri waajibaati diin wa mandubaatihi lahum mubaasaratan al amaalul badaniya mooy ku ñëw ci yow li muy jëkkee yow mooy jàng loola xam-xam njàng moom seetewuñ ci woon kenn ku mas a ñëw ci moom rek jàng loola la xam-xam mag ñi àndoon sëriñ bi amul ab jaahil nekku ci woon ñëpp ay borom xam-xam lañu woon da ci am xam ne dañoo seey ci bëgg Sëñ Tuubaa bëgg gi ñu bëgg Sëñ Tuubaa ak seey yi seey ci moom mëdd seen xam-xam ba boo leen rek ne xam dara waaye ñoom ay yu mag lañ woon yoo xam ni kenn rëwu leen woon ci xam-xam loolu itam ci mbir nag gis nañ ko lu koy tegtal lu bari bari dama bañ mu gudd rek wax na alayka yaa muridu bi taallumi fa innahu mutahirun min zulami wax na ci yu bari bari ci dénkaane xam-xam loolu mooy li jiitu ci moom moom wax na ne jihaadam jihaadi xam-xam la inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa su la dugalee ci njàngum xam-xam la mu cee toftal mooy di la liggéeyloo ngir sa yaram tàyyeel ndax suñ suñ bés dafa dafa seetlu ne ñi dëkkee suñu gox yi ay Kajoor ak Bawol ak diggante bi tàyyeel dafa yomb ci ñoom moo ku ñëw ci moom faw mu liggéeyloo la liggéey bu metti nag mooy liggéey tool yi nga xam ne amu noppal bëccëg bi yëpp dañ ko yendoo liggéey guddi gi itam ñuy jàng xasida ak di tudd yàlla ba guddi gi sore ñu tëdd tuuti bu fajaree ñu delluwaat ci liggéey mosuñoo am noppal lekk nag bokkutoon ci seen mbir moom lekk moom garul leen ko woon moo tax sëñ Basiru Cheikh Mouhamadou Lam Julle wax ne bi tajwiya maanaam tajwiya daanaka moom moom la doon tarbiyoo mooy xiifal leen Sëñ Tuubaa dana wax sax ni malayka yi buñ gisee murit buy lekk lekk bu bari dañuy dañuy jooy ngir yërëm koo xam ne kii bu gaaw a am ni muy sàkk qad axbaru anna malayka jalili tabki ala muridi in kaana akul joxe na ndigal loo xam ne wala tajaalul juuxa taamakum bi ñuy sanc fii Touba am na ku ma nett li ku jëlee ca ku bokkoon ci sanc ba nee sëriñ bi dafa am ñetti fan yoo xam ne joxu leen ñu lekk joxu leen ñu naan mu indi leen xaan ca ñeenteelu fan wala ñetteelu fan ba ginnaaw bi nag bi sëñ bi demee ci géej gi ba delsi di di ko ko laajaat mu nettalee ko ko na mu woon sëñ bi xamal ko ne ko booba day suñu borom ci boobu moo xamal ne gars ñii nga àndal duñu ay malaayika da leen di jox ñu lekk te naan ma xool lekk ak naan xaal boole ko ma jox leen xaal boobu nga xam ne moom booba da leen doon fàtte mbirum lekk boo ko doon ci mbir te liggéey bu sax am na tudd yàlla bu bare bare daa ci ñëw léegi ñetteel bi ci anam gi ni mu leen doon tërbiya mooy feral loo seen bakkan boo ñëwee li ñuy jëkk a def ci yow mooy faw sa xol bii nga génne ci àdduna te itam da ngay dëddu mboolem luy a dunia wal iraad an il jaahi wal maal wal inkibaabi ala al saalih وإخلاص النية في كل شيء والتحضير مقاصد الشرع وحكمته في كل أمر تموي سبقا دونك الفرم تي خوي خوي ادني بونكو بك جهادك سبقا با ادنا دوكو دكي دو دكي سخون دغ يتم درجه بغ درجه ak bëgg alal moom lay njëkk génne saxal bu ma sañoo mom bu gisee mën yi am woyof waxtu wu ne ñu jekk ci wàcc seen daraja sippi seen daraja ci jamono ju man mën a toog fi suuf comme ni ñu toogee ci kaw loolu dafa woyof ci nun te yomb ci nun waaye du lu yomb am na ñoo xam ne toog ci suuf mënuñu ko ëpp nañ ko seen jëmm te loolu mooy tër bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi dana wax ne laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu darratin mooy ak rëy dara dara bu ci nekkee ci sa xol si luy dee ci lu dee ci ci nekkee sa xol doo dugg àjjana moo tax sëñ bi moo sañu ci li muy njëkk a ci yow mooy jëmbat ci yow ak woyof ak ñàkk gis sa bopp du yem ci loolu nga saxal la ci jëf ju baax sa yëngutu yëpp di ay wut di sàkku tuyaaba ak jëfu yiw ak seeral sa yéene te looy def mu dëppoo sariya ñeenteelu fi muy jaar ak yow ci ni ko sëñ Basiru waxee ak Cheikh Mouhamadou ji dëgg na mooy gala ci tudd yàlla gu bari gudul gudul jeex walxamli ala dicri l kathiri bil wal qasaay mooy waxtu wu ne ñuy wax laa ilaha illa laa juru dakk laa ilaha ji nga gis murid yi di ko wax ci mbedd mi foofee la tàmbale woon mooy waxtu na ñuy tudd yàlla wax ne ne sax sëriñ bi mu nekkee fii ci Touba bi mu ko sancee ak bi mu nekkee Darou Salaam moom ci boppam moo daa dëbbee si kar si bu dee fii ci Touba bu ma saa nekk ci mbaar mi ñu ko fi defaloon mooy dëppe si kër si nekk ci biir di wax laa ilaaha illallaah gaa ñu nekk ci biti di di di ca di di di aw bu waxee laa ilaaha di diir lañ ko def saa yu ma julli wax ne julli farata lañ ko def yimul ci loolu ñuy jàng xasida Sëñ Touba yi njàng moo xam ni mooy ni ñu ko jàngee ci murid gi rek foofee la tàmbalee yimul ci loolu moo leen daa. digal waxtu wu ne ñu yorum njàpp te ne buñ masaa nekk ci tool yi tam ku sam njàpp toj da ngay dem jàpp wax ne murid yu njëkk yi buñ masaa di liggéey dañu yor ay gutt fu sam njàpp tojee rek nga jàppaat julli te jëkkoo wala tiim yooyu bokkutoon ci murid boole koo gi musta nangu ñu jaxasoo ñeneen ñu may ñoom ñi tërbiyew waxuma la nag jigéen jaxasoo góor jigéen loolu moom mësu ko nangu ci dundam kon loolu mooy fi muy jaar ñoom te loolu wax na daana leen wax ne xayru taami lil muridi saliki dawaa mu dikri lil jëlaali maliki te mooy murid lekkam gi gën a neex dafa war a doon saxoo tudd yàlla da leen wax ne tudd yàlla moom la xol di dunde moom la ruux di dunde ni suñu jëmm yi di dunde xéewal yi ngeen gis noonu la ruux di dunde tudd yàlla waalam bi anna dikra quutul qalbi amal xulu amal xufuulu fa huwa baabu moo tax mu daa wax ne yaa ayuhal muridu laazim dikra man yadkuru man dakarahu taxwil aman ki nga xam ne foo ko tuddee mu tudd la foo ko fàttalikoo mu fàttaliku la muy yàlla subhanahu wa te foo toogee di ko tudd mi ngi jataayu yow kookee daa wax ne yéen murid bu leen sax mukk jataay yooyu bu leen ci doyal dana ngeen ci sax mooy di tudd yàlla waxtu ne kon amma dawaamu dikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksir loolu wax na ci lu bari bari tudd yàlla bu bari googu it day ànd ak suñ bi su doon wax ne bu ñu nee ba loolu sax ci ñoom mu dolli ca xarrabahum li fahmil musaawaat mooy def ci ñoom benn mbir bu am solo te mooy fexe bañ dégg ne nit li muy gënee nit mooy gën koo ragal yàlla maanaam suñ bi dafay fekk booba ay classe sociale yoo xam ni dafa saxoon ci réew mooy ñu tudde géer ak ay ñeeño ak ay jaam classe yàlla yoo xam ni ay métier moo ko moo ko jur am ñoo xam ne métier bay lañu féetewoo ak ñu demee noonu mooy mooy mooy géer yi daanaka loolu moo doon seen métier waaye ñu tudde ñeeño nga xam ñoom dañuy ëw mbaa ñuy yat yu demee noonu mooy seen mooy seen mooy seen métier loolee nag bi mu ñëwee dafa taxaw ci dindi ko mooy murid yi ko njëkk a mu jot na kenn xameetu ci kii ci ban classe sociale la bokk ci classe yooyu ni nga ko dindee ñaari anam la mooy da leen daa boole ci sëy yëmut ci loolu dalaa jël métier yee di ko def loolu ñii jël métier ñii di ko jox di ko def ñi mujj na loolu daal di ci biir murid yi kenn xamutoon kii fu mu bokk ak kële mu leen daa def ci seen xel ne leen il akramul ibaadi inda allahi aktharuhum taqwan bi rasulillahi ki gën a baax jiitu ëpp daraja mooy kii gën a ragale ki sut ci yàlla waalam bi annama tafawutal wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira ñoom murid yu njëkk ya ki nga jàpp ne moo la ëpp daraja mooy kii la jiitu ci sëñ bi ak ki nga jàpp ne moo la ëpp positif ci sëñ bi moo la ëpp la ci sëñ bi yëmul ci loolu bokk na ci fi mu daa jaar ak ñoom ku mas a àndal mooy suuf la ci ngay doxe ay teggin teggin yoo xam ne day feeñ ci sa lépp ci say wax ci say jëf ci sa axawaar yëpp murid yu njëkk yi sëñ bi da na a wax da naa daa wax bu lu baree bari ne yàlla boo ko bëggee teggi na la koy may àjjana nag ak lekk yëpp a nekk yooyu yooyu moom jaamu yàllaa koy may jaamu yàlla mooy may aljana dugg aljana waaye teggin mooy may yàlla loolu wax na ko ci li wax ne wa saxa anna al awliya al wasilin maa wasalu ila ilahi al alamin bi kasrati al amali ka salaati wa xajji baytillahi wa zakat bal wasalu ilayhi bi riaaya li jumlati al aadaabi nit ñi àgg ca yàlla julli gu bari taxul ñu àgg ca asaka yu bari ak aj màkk bu bari taxul leen ci àgg leneen ci àgg na dëgg-dëgg mooy sàmm teggi seen digganteeg seen borom xam nga nit ki mën naa am dara ju yeri waye du weesu dugg aljana loolu nak bokkut ak nak ag ci masal bu demé aljana ngay mëna gis suñu borom tawar ko taala loolu mo dox aljana ak ci biiram banex yoy itam nit ki yalla mëna ko ko taw fex mu tambalé mom fi ci aduna motax tax ma leen wax ne yeen da ngeen di sam ay teggin ci te xam leen teggin ñaar la teggin yi neub ak yi feñ yi neub moy sa diggante ak sa borom يفين موسى ديغان تكنيل نيتني تأدبوا في علن وسر مع العلي وخلقه بالبر كن متأدبا مع الرحمن ومع خلقه بكل شان لأنه به إلى الرحمن يسر عبد وإلى الدينار فكل من بغيره رام الوصول لحضرة الله فغمر لا نبي كوبا غدم سيالا تجارو بو سي تيغين لو لو لو moo tax murid yu jëkk ya sëñ bi da leen defoon ñoom ñooy ñi ëpp teggin ci li yàlla sàkk boo leen dee méngale saxaaba ya nga leen méngale saxaaba ya dañ dul waxtaane seen wàllu teggin waaye ñoom ñooy ñi ëppooni teggin fi ne gis nga Seydina Abbas ibnu Abdul Muttalib keroog bañ ko laajee yaa ngi yonente bi ku mag mu ne leen huwa akbaru minni lakinnani wulidtu qablahu ana moom mag fuuf waaye maa ko njëkk feeñ jamono ñi mu dox ne maa ko mag ndax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lañ ko laaj waaye wulittu qablahu la huwa akbaru minni lakinni wulittu qablahu gis nga buñ ma saa toog fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa yax maanaam duñ ko xool xadisu bi nekk ci imaamul Buxaari te Urwatu bnu Mas'ud Saqafi nettali ko ba mu demee ci yonente ba ca sulhul Xudaybiya nee na ñoom duñ ko xool jàkk ñëpp dañuy sëñ dañuy wax ne boo mësaa fekk saxaaba yi ci kanam yonent bi day mel ne picc moo tong ci seen ci seen ci seen kaw duñu siggi duñu raf te bu yonent bi mësaa maanaam jàpp ba noppi kaanu yaqtatiluuna ala waduihi xam ne la barkelu ci moom loolu mooy mooy te mooy murit gi su defee li ñuy wax xaxtandiku du àgg suuf kenn ku ne da ko alawtiku fa dallaka biha wajhahu wa jildahu wa kama qaal teggin yooyu nag moom la suñ bi sóoboon mag ñi dinaa ci nettali question boo xam ne xaw naa xoromu nii waaye li tax moo koy nettali lu bari mooy dañ ciy jàngee teggin yu bare bare bari mooy ab xew-xew bu amul suñ laaj ko kenn ci mag ñi kooka nettali ko ko ci anam goo xam ne dara ci tooñ nekku ci dafa am luy yëngu ne mu laaj suñ bi laaj luy yëngu nee na wax ne ni am na ku ma wax ginnaaw bi ne ma sëñ ma jow paxala moo ko wax ne ko su ma ci amee ndigal dinaa ko nett bi mu ne ko mën nga ko nett mu ni ko nettali xew-xew bi ne ko jaamu bi yàlla la woon bu xeeboon wërsëgam ba tax ko àgg ci wërsëgu jàmbur di ca sàkku ndolle te amuñ ca ndigal boroom wërsëg ba fekk ko ñu ànd ñoom ñaar jiit leen di yokk seeni jéego tuur tànk yi woon ci penc bi di leen yokkale jéego yi mu mel ne ki jiitu lañu ki jiitu woon lañu dab ba di ko tegoo ay bant nga xam ne nettali na xew xew bi yow mi ngi koy nettali xam nga li mu bëgg a wax te tooñool kii def mbir mi bokk ci dara lu loo xam ne ak tooñ ngi jaamu bi yàlla bu xeeb wërsëgam ba tax ko àgg ci wërsëgu jàmm di ci sàkku ndooleen te amu ca ndigal borom wërsëgu fekk ko ba nee na ñu ànd ñoom ñaar jiite di yokk seen i jéego tuut tànk yoon ci penc bi leen yokk na jéego yi donc nag daal xam yow xew-xew bi ni mu demee moom waaw ki jiitu mel ne moom la ñuy def ba di ko teg ay bant kon teggin sëñ bi di leen dal sóob ci muy feeñ ci seen i wax ak seen i ak seen mbir yépp sëñ bi surtout wax ne loolu nag bu saxee ci ñoom mu àgg nag ci def leer-leer muy jataayoo ñoom léeg-léeg mu ñëw jataayoo dongay dongay yi ak taalibe bi yëpp da leen def daa jataay ñoom di wax ak ñoom lu bare bari ay jataay jataay si bi yu yàgg la daa doon ba yu nekkee njëriñ bayu wax na ne bis sëñ Cheikh Sarr ci kasatam boobu wax na ne fekk na jataay boo xam ne suba la ba bu doon jamono ji ne jamono midi wala onze noonu la ko waxee ba mujj sëñ Cheikh Sarr ci boppam nga xam ne doon borom ñu mo juk ne ko mbakke yeewi nit ñi nak nit ñi am na ñoo xamni amu amaguñ dépensé am ñoo xamni amu amaguñ luñ joxe seen kër mu ne ko Cheikh Sarr baye bu may wax ngay dog sama wax ne ko jotaay yi de bis dana ñew nit ki bëggoon ko fekke dana ko jaral yaakaar naa sol ay dalam di dox di dox bu mu dag dama nga jëndee ko kese bu bàyyi lu mel na ko wax li ma wax li ma bëgg leral moy fa jotaay dara gudd dara jotaay ak ñoom ci jotaay yoyu nak sëñ Basiru nee na yu bassiruhum biha uyuba nafs ci leen daa xamane seeni sikk boo ma saa jotaay bi sëñ bi ba jóge sikk yu bari dana dañ ci yow ndax ci ay waxam li ne ci yow lay wax kenn ku ne da nga ci dégg sa bopp wa yufahimuhum xaqaiqa diin dëgg-dëgg diine yi ak diine ci boobu rek ci lañ ko daa jàngale ci ay tomb ak ay xikam yu gàtt ak ay dénkaan wa yuraqihim li taxalli bi xulliyil kamaal di yéegal yu ñoom nag di seppi ci ñoom jikko yu bon yi di dugal ci ñoom li baax ba keroog ñuy ñuy gën di jege ak mag di defar seen jikko di laabal seen xol di leeral seen seen di leen sóob ci itam jamul himmati ala allah bari na loolu ci dénkaane bi mooy si yitte jëpp di jenn di di yàlla wut yàlla maanaam sa xel bul ci dugal xalaat yu bari comme léegi nag nun li xew ci nun nga xam ne da ngay saxal mi day bëgg a nekk ca marché ba nekk ca jàkka ja nekk ca kër a nekk ca soxna ya nekk fu ne mu nekk ba loolu mooy tachattutu al al al qalb lañ ko tuddee mooy sa xel xel mu teqale ko moom la sëñ bi leen daa suuf ci jamul himmati ala allah mooy sa yitte na doon jenn te mooy yàlla sa xel bu ci dara topp lu may yàlla subhanahu wa taala da leen daa ci da leen daa jàngale ne murit dafa war a sax ci tuub tuub du teqale ko murit bi ak dëgmal yàlla ak dëddu aduna koy bëgg nga bëgg ko ngir yàlla koy bañ nga bañ ko ci yàlla te sa xol nga tëj ko ci kaso xalaat màgg suñu borom bi tabaraka taala saw làmmiñ nga tëj ko ci tudd yàlla say cër nga saxal ko ci topp yàlla loolu yi suñ bisir wax na ci lu bari bari na loolu laa def ñoom ci jotaay yooyu bokk na ci yim leen daa dénk itam dama ci jël yenn rek ndax lépp lu fi xaj mooy da daa wax ne sa xol bii kiiraay yi ko wër ak taq gi mu taq moo tee moo la moo la tee gis leer suñu borom tabaaraka wa taala kiiraay ba ci jëkk mooy lekk bu bari ak naan gu bari ak jaxasoo bu bari ak wax ju bari ak nelaw yu bari ak sàggan ci tudd yàlla subhaanahu wa taala wax itam ne murid dëgg-dëgg dafay mel ni suuf jikkoy suuf lay amee suuf lu waaye jël ci lu bon xëy xëpp ci kawam waaye boo gasee lu baax rek ngay gis ci biiram mu dul njëkk noonu lañ meloon lu ne waxal nañ leen ko fii ci réew mi waaye ku mas a dugg ci seen biir jaxasoo ñoom ay fan yu néew nga bëgg leen bëgg seenum sëriñ danaa wax itam ne murit njariñ li yor di ko tasaare di ko joxe da ci wara melni asaman wala ak ker asaman buy taw du xol kër yi yéefar lañ wala kër yi jull lañ ñepp day tawal non la murid wara dox da len da wax tam ne man am na ñeenti màndarga yu ñu ne yow kat murid sadiq la am na sifaat yoo xam bu nekké ci yow xamni murid sadiq la su ne ko ci yow nak jëm ko lijeeti ba ci jëk mo asidqu fi mahabbati shaykh moy bëgg sëriñ bi bëgg go xamni ne dëggu ci yow bëgg googu mooy li mooy li jiitu ci taalibe dinaay wax sax ne mooy secret ak ak taalibe dama koy misaal léeg ci jëmmu jëmmu ji ngay gis muy karkaas bi mooy sariya bi tegu ci waaye ruux gi ci biiram mooy ay teggin teggin mooy ruux ak ak taalibe secret ak ak ak ak murid nag mooy ak bëgg Cheikh Mouhamad Lamine Gueye jëm mooy dara wax ne Sëñ Tuubaa su doon lu ñuy jaay man jégalu ci baat bi ko mooy njëkk bëgg Sëñ Tuubaa rek moo la moo moo lay may ci gën a sori gën laa jege dëgg ak secret ak murid kon jataay yooyu ñoom la daa doxee ak ñoom ba ci leen daa defee lam daa def ci ñoom teewul itam daan leen daana bégle sëñ bi daana bégle lu bare bare daana wax ne képp koo xam ni aju nga ci moom di nga am di nga àgg ci lu kaw lu kawe sa njort ci yàlla ah li ngay yaakaar ci yàlla lu ko kawe da nga jot faaza muridun bi ma maa ma maa dannahu billahi jaariya ba daa leen waxit ne képp ko xam ne yàlla defal na ko tawfeex mu aju ci moom yàlla dana ko teral fii ci adduna te dana ko teral ëllëg itam yowmal xiyaam dana ko jariñ ci àdduna itam te dana ko jariñ itam bu ëllëgee daa waxit ne fexe ba sag aju ci moom wér di nga mucc ci seytaane daan leen wax tam ne képp koo xam ne bi nga ajoo ci moom mosoo yokkat mosoo dellu ginnaaw di nga texe mooy di nga mucc ci àdduna ak alaxira loolu wax na ko ci biir yu bare bare bare kullu muridin bi yaluusu yasaadu wa innahu min ne ada bu baaxadu maanaam bayit yi tegtale mbégteem sëñ bi loolu noonu murid yëpp xam nañ ko loolu daa leen ko bëggal te wax leen ne itam képp ko aju ci moom yan na la ci ñay dem sawar loolu dem sawar mukk damaa dégg ku ma nettali ne sëñ sëñ Saliou Mbacké daa wax ne murit du dem sawara waaye nag maanaam aljana itam lu bon du fa dugg lu waaye taq ci diggante bi lañ la koy fóote mañ la ko fóot fii bala ngaa faatu ci ay wéradéeg ay natt yu bari bu setul boo duggee ci bàmmeel bi continuer fóot bu setul nag bi nee ba xëy na fekk ngay àgg daal moom moom moom moom dañ fexe ba nga set waaye yàlla yàlla defal taw fex nu bañ jaar ci póot moom xeeti photo yi moom dañ ci yàlla musal kon bégle yu bari daan leen ko bégal wax na leen itam ni képp koo xam ne ci moom ginnaaw boo faatoo li gën ci la yàlla yi joxe foofa ci yomal xeem loolee ngay am yomal xeem ay darajaat la la fa ëpp solo nag ca la fa yàlla yi terale jaam ne ci loolee ñi ko topp ci yooyu la ñu am wajjaha rabbiya lahum bilantiha ba'da mawaati kulla ak yu bare bare yoo xam ne sëñ bi wax na ko Cheikh Mouhamadou Lamine danga na wax na ne itam ci biir bu nekkee fii ci Touba xam nga Mbacke Kajoor la tàmbalee ginnaaw mu dem Mbacke Bawol ginnaaw mu ñëw Daaru Salaam ginnaaw mu ñëw fii ci Touba ba ni mu demee bari digënde bobu ci la ci lañ sét mourid yi ko top majazi bi tàmbali ci am moy nit ñoo xam dañoo sey ci yalla dañ da taal ak taal dugg ci bir taal bi genna te dara du jexital seen yaram nit daana yëg ci kaw garab daanu jiital bopp ba te du def benn jexi mu a jël jël suñu tuba daal di jàpp loolu la tambalé feeñ ci seen ci seen mbir ndax booba sëñ bi leen bi ak yoon yu leen jaarale te muy yoon wu dëgg woo xam ne yàlla kese moo leen ñoroon fii ci Yacine it ci Yacine ci Touba mooy 1310 maanaam sëñ Bassirou da koy tuddee amul taxaquq ci la beneen dox yi nag te mooy gën a wéral dox bi dara luy. maanaam àgg sëñ bi àggoon na booba ci maslaa yee yëpp sax da ko bàyyi woon seen yitte moo doon wut yàlla kese kese kese përi wut woon dara ci at moom itam ci la jaayanteeg si Abdou Khadre Jeylaani te loolu feeñ na ci xasida gi defe defee fii te ma waxoon benn bay bi mooy yaqulu ahmadul faqir jiddan atuba yu qaadiru wirda ci biir xasida gis nañ mu jaayante jeeg si Abdou Khadre wax ne yaa sayxanaa yaa sayxanaa yaa gawsanaa yaa qutbanaa yaa baadanaa bal kullanaa yaa xibbanaa inni ha innani l yowma mubaayiun lak wa xaadimun laa taxrimani fadlak loolu ñu ngi def ci 1310 hijriya gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci la jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi bàyyi tariqa yépp nag maanaam dese woon ak wérde waaye jëmmi lonk ci tariqa loolu la bàyyi mujj benn sëriñ rek la am muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci moom lañ gis mu wax ne ubaayiwal yowma rasul al Moustapha bi xidmatin wa asalullah al wafa xasida googu wax na ci yu bare bare yoo xam ne léegi moom ajootul ci benn wala kenn wala benn tariqa yonent bi rek moo di sëriñ mooy royu waaye itam ci diine bokk na ci itam li nga xam ne daana ko leeral lu bari mooy moom bi mu amee taxaquq bi mu joon na ni ko sëñ Basiir waxee mbiri wërd yeeg yooyu du gënu fullalu ko woon maanaam daan ko def waaye liñ mu gënoon a yitteel mooy iqaamatu sha'aa'ir lislaam mooy mooy lislaam ñu gën ko taxawal ci julli yi ak jàkk ak jàng alquran ak yëre demee lislaam mu jot na moom la gën a fonk ci taxawal ko dundal ko wala ne mooy sama diine diini ilal jannatil islaamu fa huwa ala diinan siwaahu diinun islaam yi laa yuhmadu inda al ilaahi wa bihi nujaddidu loolu wax na ci lu bare bare bari loo xam day wax ne lislaam dongu laa tànn muy diine yitteem jëpp ak dundam gépp di taxawal lislaam ak dundal ko bu ko defee itam ma maa ngi guddal mel waaye am na yoo xam ne mas naa jàppe ne wooteb sëriñ bi ay cosaan la ci nga xam ne ci ak murit la bokk yii buñ ko xamee dañu xam tey jii ni ñu dundee murit cosaan yooyu la ci jiitu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla cosaan la ci murit bokk na ci yi nga xam ne mënut a ñàkk ci ak ci ak morit maanaam murit dinaay wax ne nit ki bala mu koo doon day doon jullit ba noppi di def yi jullit yi def lépp doo nga ñëw jëbbalu yittam jëpp nag di wut yàlla jaamu yàlla moo tax ak cosaan la ci سنتوا دينك لكم بتاعي يا أيها الناس عبدوا ربكم بما به خير ولا جاءكم دوموا على السنة والإجماع واخلصانا الاستغلال بالفرائد مع بالفرائد مع قبل سواها معناها يوم دينك جك يوم مرد ندون يتوى دف فرتاي su fara tay jeexena wala boko defé ba nopi dog ci toftal nga yi ngi ci dog wala takun muntabidha shari'a bul wacc mukk shari'a ñaareel bi ci cosaan yi nga xam ne ci murit la bokk mooy sàkk lu lew sàkk lu lew loolu Sëñ Tuubaa daa wax ne farata la daa wax ne farata la wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin daana lu baree bari wajtahidu fi talabil xalaali daa wax ne nit ki lu xam-xamam bari bari jaamu yàlla lu mu bari bari bu ca boolewul di di jëfandikoo lu lew la muy def yàlla du ci nangu dara te du am benn njariñ dina wax lu baree bari ne sëriñ si seen secret bi taxoon luñ sa ñaan yàlla fekk leen ci mooy dañ daa nekk ca àll ba di dunde seenu ñaq ak lu lew te yonte bi sallallahu alayhi wasallam moo wax sidna saadu ibnu abi waqas ne ko yaa saadu atib mataamak te kul mustajaaba daawa soo bëggee loo ñaan yàlla nangu ko da ngay fexe ba looy li nga jëfandikoo lépp lew xadisu imam muslim ak bukhari yépp wax na sidna muhammad nee na waaye ngi nekk ci àll ba dëkk jaamu yàlla yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi jurul jeex def lu baax rek te fekk li muy ñaan yàlla du ci nangu daal ndax moom li muy lekk moo lewut mu sol lewut wa xuddiya bil xaraam moo tax suñ daa wax ne laa mu al a wala al ibaada bil akli lil xaraam kon jëfandikoo lu lew loolu ci murit la bokk ci cosaan yi ak murit la bokk ci principe bi ak murit la bokk ñaari ba joxe saw ñaq itam dundale dépensé ci yoon yàlla joxe kooku dafa bokk ci ak murit Sëñ Tuubaa joxe na ci ndigal yoo xam ne xaw ma sax noonu murid yi mën nañu ko jëfe ba leen donte murid yi nag jàmbaar nañ ci joxe joxe ci yoonu yàlla loolu moom ñi leen ci man bëriwuñ Sëñ Tuubaa wax na ne wa kullu man waafaaka lijtidaay fasbub alayhi mataral ataay in kunta daa ginan wala taxtakiri maalan ila gadin li xaw fi darar ku ku la laaj rek maanaam jox ko ñu mu ko waxee ku la ne xaati waaw ku la ne indi nee ko am wala yarum minka layaalan arimu illa faalta lu la nit sàkku ci yow rek na nga ko ko defal loolu la ndigal loo xam ni kooku bu ko jëfandikoo ci jamono ji da nga da sonn moom waaye ndigalu sëriñ bi la loolu ci murit la bokk mooy joxe yowmal xiyaam loolu duñ ci guddal waaye yowmal xiyaam buñ gisoo am jafe ñëpp ñu deewul berle la ñu deewul joxe ñu seen xol tëjut ci joxe ci alxuraan loolu la ci bokk na ci cosaan yi nga xam ne ci murit la bokk muy sellal Cheikh Mouhamadou Lamine Diop dafa wax ne bu ma la doon boo ma laajoon lan la sëñ bi woote mën naa la ko gàttalal ci mel ni mbir mooy al ixlaas mooy sellal looy def yàlla tax looy jëf yàlla tax sa axwaal yépp yàlla tax jaamu gi nga jaamu yàlla bëgg aljana bu mu la tax di jaamu ragal sawara bu mu la tax a jaamu jaamul yàlla ngir ne yàlla mooy yàlla te daa daa dalaa daa sant nga jaamu bu fekkee aljana tax ngay jaamu yàlla bu xëy bu suñ borom waxoon ne tey aljana amatul kon ba dootu jaamu moo tax sëñ bi leen daa sóob ci ñuy def te yàlla kese kese tax fa maa maqsuduhum jannaatu adnin wala alxurul xisaanu wala alxiyaamu bokk na ci yi nga xam ne ci sànn ci murid itam nga xam ne moom ci murid la bokk mooy dëddu àdduna dëddu àdduna moo mooy sa xol bii nga génne ci àdduna man ngaa yor àdduna ak lu ci biiram waaye ci loxo bi rek la yem xol bi bu mu ci àgg Sëñ Tuubaa wax na ne ci di Cheikh Mouhamad al Wuld Ahmadul Hasan nett li ci Fatxu Samil Ali ne Sëñ Tuubaa wax ne àdduna da ko doon dàq neen ma di ko daw di ko daw ba mu mujj ñu ne ma taxawal bi ma taxawee àdduna ñëw wër ma ci wet yépp nee na ku bëgg agsi bi man nag da ngay jéggi àdduna moom wax ñu am solo sëñ tuba adduna da ko wër ci wet yëpp mooy mooy commerce bi gën a dox so santee lim sant man ngaa am adduna li ci biram ci turu sëñ so soo jang jàng xasidaam yi mën am adduna li ci biram ci turu sëñ so soo dee wax ci moom comme ni def nii rek mën nga ci am adduna li ci biiram fekk loolu lépp nag bokkut ak sëñ ba nag booba nga àgg sëñ bi da ngay jéggi yooyu nag doo nga àgg sëñ tuba parce que ci sa xol ci la bokk te bu ñu fàtte ne yonente bi ba fi jógee dafa wax ne man ragaluma ci yéen ngeen bokkaale yàlla bokkaale yàlla mën nañ ne yombul li ñuy tudde bokkaale dëgg dëgg yonente bi moo ne lastu axsa alaykum an tushriku ragaluma ngeen bokkaale yàlla lakin axsa alaykum dunya an tanafasuha li ma ragal ci yéen mooy adduna wuy si leen ngeen di ko xëccoo xadis muttafaq alayhi ala sahiih bokk na ci nga xam ne cosaan la ci murid nga xam ne moom ci murid la bokk tawaadu am mooy woyofal sa bopp ñàkk gis sa bopp ñàkk yëg sa bopp Sëñ Tuubaa dara wax ne sikk si gën a rëy ci sikk yi dab murit mooy gis ne yaa gën kenn ku ma yow ruyatul fadli ala gayrika yaa axi min aqbaxil uyubi fadliya sikk si gën a rëy mooy nga jàpp ne gën nga kenn rek bis boo jàppee ne gën nga kenn ci mbindéef xamal na yow moom dese nga bokk na ci nga xam ne cosaan la ci murid mooy xidma xidma mooy loo mën a defal nit nga defal ko ko te yàlla kese tax doo ci wut mu sant la doo ci wut kenn xam ko wala ku ko dégg ba ku ko wax loolu mooy gàttal loolu nag di nga ko defal sa sëriñ mën nga ko defal say waytu mën nga ko defal say mbokk mën nga ko defal mbokki nga ko defal julit ni ku mën a doon ci jullit donte du murid Sëñ Tuubaa sax ba mu koy wax tënku ko noonu murid yi dinaay wax ne ñu bare bari ci noonu dañ def xidma waaye seen sëriñ kese la ñuy xidma la wala ki ñu bokkal dayra wala ki ñu bokkal diw ak ak teel muy murit ni ñoom te Sëñ Tuubaa da wax ne wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina waaw faxdimuhumu turran loolu mën na ci dégg ne doomu aadama yëpp sax donte bi yéefar la boo ko mënee xidmaam loo ko mën a defal defal ko ba rek te bul wut mu xam ko wala ku ci sant wala ku la ci teg loolu xidma boobu nag ci murit la bokk te bokk na ci lay jokkaleeg sëñ bi tam yi may taalluq ci sëñ bi xidma boobu ci la bokk Sëñ Mbàkke bu sa am na fu mu ko lu am solo nekk noonu xeeti xitba yu bare bare la du ma ci dikk sëñ bi am na ñu ci wax ci Masaalikul Jinaan waaye donte da ngaa romb fii rek ci mbedd mi luy gaañe nga toppal ko def nga xitma foofu lépp loo mën a def rek ci lu baax sëñ Tuubaa wax na ne xitma boobu ci la amee yu bare bare bare bare wa qaala lii fi xidmati nabil ulum ubbi fatxul irfaani mooy al ilmu laduni xam-xam yi nga xam ne moom la yàlla sóob ci dënni gaa yi ayaatun bayyinaatun fi sudur ladina utul ilma xam-xam boobu da wax ne ci xidma yu laa ko amee ci xidma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xidmatu xayri alamin adxalat fii kalkari asraarahu fa daxalat ah secret yi nga xam ne moom moo nekk ci doxu gaa yi xidmaa ko dugal sama xol bi xidmatil muxtaari surtout jaara baaqi moo kayitin ci laa amee itam dëkkaale gi ma dëkkaale suñu borom loolu ci xidma laa ko amee xidmatu xayri alamina salabat liyal maqaamaati maan fan salabat maqaama yépp li tax ma ma ma ma ma jotandoo yépp ñu jox ma yépp maqaama yépp ma dajale ko maqaama yi yu bare bare la nu ko jox As-Sirazi Rusbahan As-Sirazi moom boobu bind na ci téere Masrabul Arwaax wax na ne junni alfu maqaamin wa maqaam la ko dajale maqaam yooyu day jéggi maqaam yëpp day dem ba maqaama yow nekk sa ginnaaw nga xam ne moom nekkatoo ci maqaam ci duwaay maqaam yëpp nag maa ko amee ci xidmatu xayri mooy am na yoo xam ne itam gis nañ bi mu jotee wérdam yi di wérdal maxuus ku mu ko ma sa jox te lu ko daa defal sart ci yow jàpp ne murid bu ne war na a def sart ci boppam ndax wérd ba na ko murid yëpp wax ne bokk na ci li mayee taalluq ci sëriñ bi te waxoon na ne ku ko jël la jitu ci yow moy nga xam say farata xam ni julle ni ñi woore ak yoy bu yakko nan ko defal ak nak ni ñi génne asak ak aj màkk yu dem non bokku na ci sàpp yooyu mooy jàng alquran par bis jàng alquran dama dama wax lu bari wala ne ci dunduk ak murid la bokku ci bi joom moo xam kullu murid bi yelu fal yu dim ci laa wadane xëy digal la joxe murid bu ne ni mu waxee ne kullu muridin bi yeloosu yasaadu fa innahu min al adamu baadu man waxe kullu murid bi yelo fal yudim dawata man jangal ko nda bu bok ci dunduk ak murid murid bi wër ta yi suba ba te jangul alquran shakti tarixam bi tam dako jaawale bok na ci surul surul yoyu mu gal mbolem ni jël wërd bi tam moy julli mbolo fokk julli mbolo lolu cheikh ibrahim jul mas'ali bi mi tag murid yi and serigne bi wax na ni yatluna da bal kitaballahi summa lahum ila al fa tardaru maanaam bokk na seeni melo ñoom murid yi mooy baagante yoonu jàkk si sëñ Mbàkke Buso itam loolu la waxoon la yaarifuna siwa ghisiyaani masjidihim aw darsi alwaahihim wal xarti bil juréb bokk na ci suróot yooyu mooy xiyaamul layli guddi gi nga dundal ko donte fukki rakkaa la ak sarafa ba tam fukk ak ñett sëñ bi loolu wax na ci lu bare bari digle ko soññee ci itam lu bare bari ak ànd ak ñii topp yàlla moytu ahli maasiyatillahi loolu bokk li seigne bi daal di dénk mboolem murid yëpp na li nga xam ne ñoo jël beneen ak bàyyi kabaayir yëpp mooy bakkaar yu mag yëpp te bakkaar yi limal nañu ko ca mun a gun suloo yoon woowu daal ci gàttal ak loolu ma doon wax nañu mooy fi sëñ bi jaarale woon ci li nu xam rek mag ñu mu àndaloon te itam mboolem murid yi ko dénkoon yi ko dénkoon ay loxo ànd ak moom loolu lañ daal dénk sëñ Basiru wax na ne mbooloo mu bari jariñoo nañ ci mat sëkk ak ci àgguwaayam ku fi jóge ci moom it boo demee gox ba nga dëkk suñ la gisee rek dañu daal bëgg ngir sa melo ak sa jikko ak sa napp ba tax na ñenn ñi dañuy lay ñëw jëbbalu ci yow ñenn ñi dañ la fi bàyyi dem seeti ka la defar ñu jëbbalu ci moom ñu nekk ca gox yooyee di def léeg-léeg ñu siyaar si sëriñ bi ku masaa siyaar si dana la dénk mag ñii mu àndoon daanaka ku ci ne defal na la dénkaan boo ko seetloo bokk na ci li leen daa gën a dénk ku ma saa ñëwaat fi moom mooy nga moytu waru ak lu la adduna jublu jublu jublu loolu daanañ ci wax lu bare bare bare ñoom mag ñi itam ñu bëggoon sëriñ bi bëgg koo xam ni moo leen gën a doon seen bopp ak seeni ndey ak seeni baay ak seen léppi adduna yëmaluñu woon suñ Tuubaa ak dara kon maa ngi jéglu bu baax a baax a baax loolu mooy gàttalu dem bi yoon wi ak murit gi dem ak fi sëñ li sëñ bi doon digle ak yoonam jaarloon gaay ci sunu euh, gëstu bu gàtt léegi nag tey nag bu ñu ñëwee ci murit gi tey loolu moom dama koy bàyyi kilifa yi ñu gën ci yaatal ak ku ne xam na ne murit yi jàmbaar lañ wax dëgg yàlla jàmbaar lañ lool boo leen xiyaase ak yeneen doxin yu bare bare waaye nag mag gee bi nekkoon moom mbooloo ma ko toppoon foofee nag sore nañ ko moom damaa xamul Sëñ Tuubaa ma nekkoon ci seen biir moom lañ gisatul ci suñu biir tax mënunoo àgg fa mag ña wala lu ma wala xew moom fa mag ña nekkoon moom ñun xaw nañ koo sori mun ko tàmbalee ci yu bare bare rek lu mel ne aju ci sëriñ bi li sëñ mbay sëñ sëñ mbay jaxle dafa wax ne murid dëgg yombul la yombay nga wax ni man ab murit laa te doo ab murit murit dëgg day dee te déegul asal wax ne itam ne murit gisal waaye ji jug di dox ci murit ba am ay murit du murit gisal waaye ji jug dox jug di ci murit ba dundam nga farjee mu dee murit maanaam aju ci sëriñ bi loolu mënoon nañ ko càmbar muy ponk boobu kenn ku ne laaj laaj sa bopp sama aju ci sën bi ndax wér na lan mooy tegtalu ne man aji naa ci sëriñ yooyu laaj la yoo xam ne kenn ku ne na ko laaj sa bopp bu loolu weesoo lu mel ne tërbiya masan tërbiya ruux yi nga xam ne ku ma sa ànd ak sëriñ bi Sëriñ Tuubaa sa ñëw fi moom te la daa wax ni te mooy misaal moom may jox lu bari rek te suñ bi wax mu nekk ci diwaan euh, majmuwa bu mag bi sëriñ bi wax ne murid bi suy doog a jébbalu mi ngi mel ne liir buy doog a juddu wax ne liir nag buy doog a ndax gis ngeen lenn lu mën a jëfandikoo lu dul soow wala meew mi bale ci wenn ndeyam amul lii du lekk ceeb du lekk ginaar du lekk leneen soow rek la mën a jëfandikoo wala meew mi nga xam ne moom la ko yaayam di nàmpal murit bi nag noonu la mel muy doogu juddu fi ko sëriñ di fi ko sëriñam di jaarale kese moo ko jariñ li ci des yëpp mën ko amul njariñ waaye sëñ bi dañu daa teg ne liir bu gisee ndeyam am soxla ci keneen murit bi it noonu la war a mel dara wax itam ne jigéen bu amee soow day feeñ ci doomam ja muy nàmpal sëriñ it noonu la mel ci taalibe bi ñu bi bi nga xam ne moo ko topp kenn ku ne sëriñ ba nga topp day jeexital ci yow bu dee sëriñ bu jege yàlla dana feeñ ci yow bu dee koo xam ne daa mel ne suñu classe bi dana feeñ ci yow kon li ma bëgg indi ci misaal moomu mooy taxaw gi nga xam ne moom na taalibe bi war a taxaw sëriñ bi te mooy ak tërbiye mu tërbiye ko ci njëlbeen gi loolu buñ ko dee xool daa leen tërbiye am na ba léegi waaye daa leen tërbiye am est moo ko ya amoon ci jamono sëriñ ñoo bokk loolu boo xam ne bu mat a laaj la daa leen tërbiye ak tërbiye ci moom soppi ko loolu lu bare bare bare bare li ma gis benn waay bi ko nett li mu lu xaw a xorom mooy benn jenn daara jum dendal ay dëkk dëkk boo xam ne seen dëkk dafa dendal ak jenn daara genn kilifa bu mag yàlla dogal benn bi nee na mu gis dong yi yuuxaloo yuuxu yu métti ñu jàkkaar ni nit def mais bi ñëwee laaj waa daara ji kan moo lu xew nekkate boobu marle moo faatu waa daara ji yuuxaloo maanaam daara jooju da xam ne ji wuti naa daara ji suñ bi doon taxawal wuti nañ wuti bu métti métti kon jëmmi tërbiyee ci boom ak tërbiyee nag ko sëñ bi daa moom moom bu ñu xoolee dañ gis ne lu ci bari soppi ko la bëgguma gën a xóot ci li xew nii waaye ñun ñëpp xam nañ ko doonte nag man damay waxtu may gis gisin ne mu di wax di gën a jàmbaar rek yàlla yàlla gën noo defal toog rek maa ngi jégalu bu baax wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw waaw waaw.